salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla mu weer wi jub si di weeru ramadan ñu dal ko ci bismillahi rahmaani rahim motulee ko ci alhamdulilahi rabil alamin te li ñu ci jëf ci xeeti jaamu yàlla yëpp yàlla nangul na ko kon ñu dellu si tey di mottuli liggéey yi ñu tàmbali woon muy waxtaane rek jaar-jaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te jamono benn weesu waxtaan waxtaane woon ak mu jëm waxtaane lenn ci ay jikkoom waxtaane lenn ci ay wax yu mu daan wax tey ji ñu kon di tàmbalee ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu làqoo ba wuy ji boromam xew-xew ya ca am loolu sax du gudd waaye dinañ ci jaar rek ci tuuti la ca des mooy soxnaam yi mu bàyyi kenn ku danañ jaar ci aw turam wax dara ci ay jikkoom bëggit mu doon roy teef ci jigéen ndax yonente bi li ci alquran wax mooy laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana bi mu doonee royteef nag te yàlla yabal ko ci ñaari ndijji bopp yi muy nit ak yabal ko ci góor ak jigéen ba lu mu ci diine ji rek bu nee góor ni jigéen inna al muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal xaanitina wal xaanitaati amul lenn loo xamante ni yàlla dina ci wax a góor ñi te ci ak jigéen kon bu ñu andee soxna yi yonente bi yooyu euh, suñu mbokk jigéen yi kon danañu am roy royukaay yuñ mën a roye ñoom itam loolu mooy sababu ñu bëgg leen a tudd kenn ku nit ñoom andi jikko yi ak la ciy cay xam nga ni yonente bi bi mu fi jógee ba noppalu nag ba mu leer mu tàmbulee siiw ñi ni noppalu na ñi ni mënta nekk ñi seenu cofeel loolu ak nite it jamono bu ne loolu def ci feeñ nit nit moom fu mu mën a tollu ci ay daraja rek dafay nekk ci biir cadre doomu aadama nite moom la Omar ibn Xataab feeñal mooy bi ñu ñëwee yonente bi noppalu na dafa génnee jaasi ni képp ku wax ni faatu na dinaa dagg sa bopp ci sama jaasi ji ndax yonente bi du faatu mënut nekk daan nag na Moussa defoon dem ab diir di deyaale ak boromam noonu la yonente bi def waaye dina del siwaat bépp naa fekk bu wax ni faatu na dana rey bu ñu bi nekk di wax jooju Aboubacar ñëw ba mu ñëwee jàll ba ci ne yonente bi son son mu muri ko daal di koy fóon daal di koy muuraat daal di ñëw ci biir mbooloo mi taxaw fekk Omar taxaw mu ne ko Omar toogal waaye toogut Abubakar daal def xutba bu gàtt te làmb lu bari dafa wax ni man kaana yacbudu muhammadan fa inna muhammadan qad maat wa man kaana yacbudu llaha fa inna allaha xayyun la yamut li nga xam ne daal bis ni ki tey ku daan jaamu Muhammad na xam ne Muhammad faatu na bis ni ki tey koo ci xam ne yàlla nga daan jaamu nag na nga xam ne yàlla kuy dund la te du dee ba mukk daal di tere ayab wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutilan qalabtum ala aqaalikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an aaya boobu mi ngi wàccoon ci xareb Uhud bañ di déclaré ba ibnu Qim a waxee ni rey naa Muhammad ba ñenn ci jullit yi seen pas-pas xaw a daanu ñenn ñi daw ginnaaw bi ñu demee ba xam ne yonente bi faatuwul ñu daje ci moom ginnaaw bi la yàlla wàcce aay di ko dale ci kaw jullit yi di leen xamal ne leen ab yonent te ay yonent jaarul ñu fi jëkk ko bu faatoo bu dee mbaa ñu rey ko ndax da ngeen di dellu ci la ngeen nekkoon doonaa ci yéefar ku ko ci def doo wàññi yàlla dara aaya boobu bi ko Aboubacar taree Omar dafa wax ni dafa mel ni tey ji la aaya di wàcc ñu daal nekk ci jaaxle gi nag ak jaaxle daj kapp saxaaba yi mbirum xilaafa gi it foofee wax nañ ne tàmbali ne werante nañ ku war a wóotu werante bi ñii ni muhaajiroon yee ko war a wóotu ñii ni lansaar yee ko war a wóotu muhaajiroon yee neen ñun ñoo ko jëkk topp ñu ay mbokkam eh, kon wóotu ko ka koy wóotu ci ñun ñi la war a bàyyi ko lansaar ko mën a xalaatoon ci ab dëkkam ba mu jógee ñëw ñu fat ka koy ci ñun la a bàyyi ko lii am na jëkk ñuy denc yonente bi sallallahu alayhi wa waaye ginnaaw bi yàlla def tawfiix ñu dëppoo ci Abu Bakar war ko wutu wax nañ ne Omar moo jëkk jaayante ginnaaw bi magi saxaaba yi ñëw ba lépp daje ci kàddu Abu Bakar war a doon xalifa yonente bi dajante bi foofu lañ ko bàyyi ci néeg ba saxaaba yi dem di ko jullee kan par kan di ko jullee ba ba mag ñi jeex jigéen ñi ñëw jullee ba xale yi sax ñu ne jàkk ko jullee mu nekk fa altine yendu ba ngoon jot ba talaata ci guddi nag lañ ko denc muy tiisu dajoon kapp ñëpp yëg ko léegi nag mu bàyyi fi ñaari mbir yooyu ma waxoon ci ginnaaw muy alquran ak sunna bàyyi fi saxaaba yi ñu ko leer ñu ko leer nag def ay fotohaat fu diine war a àgg ñu àggale ko fa noonu la fi bàyyee juróom-ñeenti soxna juróom-ñeenti soxna la fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ak jagle gu ko yàlla jagleel mën nañ ni kon yonente bi dencoon na fukki soxna ak benn fukki soxna ak benn juróom-ñeent ñi fi la leen bàyyi mu mel ni li mu soxna yooyu nag na wax ju bari ci ñi noonu diine wax ju bari wax nañ ko ci eh, di dal ci kawam jaare ko ci soxna yooyu am na ñuy wax ba naan kooku nitug bànneex la woon waaye nit ku jëm ci yàlla doo takk ay jabar yu bari te Muhammad ay jabar yu bari képp la fi bàyyi lépp am na ay noonu islam ko wax waaye ñooñu ku leen di tontu da ngay wax rek ni yonente bi bi muy doon gone ba ni mu amee juróom benn fukki at ak ñett di fi jóge ku ko xam rek ci ak fegu nga ko xam ak sori gum sori mbiri bànneex kenn mësu koo gis mu jóg dañe boppam ni dafay seeti xale bu jigéen kenn mësu koo jóg gis mu waaj ni dafay dem këri jigéen ngir waxtaane fa loolu ña ko xam ci ak njëlbeenam ba ci ak mujjam loolu lañ xam ci moom damaa xamul nag tubaab bu nekk ca Europe mbaa mu nekk Asie teen rek di jëfandikoo xelam ak xolam di bind xëy na sax bu jëfandikoo xel dina ko teg ci yoon waaye ak xolam lay jëfandikoo di bind di dal ci kaw yonent bi di wax lu ko ne kooku moom waxaale moo ko waaye ña ko xam dund ak moom rek lii lañ xam ci moom kenn mës a dégg ñu ne yonent bi daana dem ci fawukaay kenn mës a dégg ñu fekk ko ci birab bu ñu naan sàngara kenn mës a dégg ñu ne ànd naa ko jigéen jum denc loolu mës su ko dégg ci histoire am tàmbali kon loolu noonam yan jamono te la ñu gën koo noonu ci adduna bi tuuma yooyu moom kenn ci ñoom mosu ko xëpp ta ñoo gënoon a xër ci xam lu koy manqué ba wax ko ginnaaw nag xam lu koy manqué ba wax moo leen ñoroon ñu dund ak moom ba mu jógee fii te loolu mosuñ ko ko kon keneen ku ñëw di ko xalaat di ko wax mën naa am da ngay manqué sa bopp sax yow. soxna yooyu ki mu njëkk denc mooy soxna Khadija bintu Xuwaylid muy soxna si mu jëkk a denc bi mu koy denc moom yonent bi mu ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom soxna soosu it fekk amoon na borom kër jëkk yonent bi sallallahu alayhi wa ba am ak moom ak njaboot borom kër ba nag ba mu faatoo bi ko yonent bi denc mi ngi toll ci ñeent fukki soxna si yonent bi toll ci ñaar fukki at ak juróom diirub li yonent bi yor soxna soosu it muy soxna Xadija tëkkul keneen teg ko ci kaw ba ne faatoo moom Xadija jëkk yonent bi di gàddaay bi muy faatu am na lu ëpp juróom benn fukki at yonent bi toll ci ñeent fukki at ak nangam di jege juróom fukk kon yonent bi am naa Xadija lu mat ñaar fukki at ak juróom te dolliwu ci keneen ba ne Xadija faatu Xadija li muy doon mag nga xam ne bi ko yonte bi takk am na ñeent fukki at teewut moom la gënoon sopp ci ay ay soxna moo moo ko gënoon ci ay ay soxna cofee gi mu ko sopp dem na ba soxna si lu yàgg ba yor yeneen soxna waaye dafay tudd Xadija lu bari di ko fàttaliku ba fiiraangee sax daana dugg ci seeni xel ci loolu soxna Aïcha day wax ni yonente bi daawul xaw a génn kër gi te tuddul Xadija tagg ko ay wax naa ne benn bis am na benn bis mu dégg mbokkum Xadija mu wax xaj na rakkam loola magam yant bi daan ci kooku leen saa bu waxee daf may fàttali Xadija sama xel daa dem ci Xadija soxna Aïcha ni ko fiiraa ngi duggee foofu nee na ma ne ko Xadija lu mu doon xanaa du woon dara lu ak màggat goo xam ne faatu na bu yàgg te yàlla wóotalal na la ko wóotalal na la ju ko ni ko déedéet wallahi yàlla wóotalaluma ku koko gën ndax ba ma nit ñi weddee la ma gëmoon ba ma nit ñi bàyyee la ma jàppoon dimbali ma ci alalam te booba nit ñëpp xañ ma seeni alal te ci moom it la ma yàlla wërsëgale ay doom kon yàlla mayuma ku ko gën xam ne loolu la yonente bi tontu soxna Aïcha radiallahu anha mu mel ni cofeel gi yonente bi amoon ci Xadija loolu ku ko xool da nga xam ne du cofeelug bànneex du cofeelug ak taar du cofeelug ak ndaw waaye jëmmi xelum Xadija ak jikkoom yu rafet ak matale ko leen ak jiitu gim jiitu nit ñi ci ak ngëm gëm ya nubuwa gi loolu yi mooy mooy mooy li sababoon cofeel gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am fi kon lana doon royteef ci jigéen ñu xam ni cofeel gi dox diggante góor ak jigéen du taarub kaw rek yam ci manes na ni taarub kaw nit dañu ci sopp nit waaye bu boobaa loolu la ñuy tuddee ak nobel nga xam ne day mel ni lu romb rek di jàllee waaye cofeel dëgg dëgg dëgg goo xam ne dalay topp ba ci sa biir bàmmeel la la ko mën a may ay jikko lay doon kon soxna Khadija li ko may cofeel googu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay jikko yu rafet la yu mu ànd ak moom gannaaw bu faatoo mu door a denc kañ wax as-sayida sawda bintu bintu zamaa kañ wax sawda mooy ñaareelu soxna bi mu denc ginnaaw bu Xadija faatu moom dafa doon koo xam ne moom itam këram ci ñu gàddaayoon demoon Éthiopie ci la bokk waaye dafa gàddaay ànd ak moom dem Éthiopie far euh, soppi ku doon ab nasaraan doon fa nasaraan ba foofa la faatoo ba faatoo nag soxna si di sawda wéet lool amul ko ko jaboote bu dellusiwaatee ci ay waa këram mën naa am ñu forcé ko ci ak kéefar te bu boobaa lor ju metti dana ko ci fekk loolu moo waral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, féete woo ko denc ko ngir terale kooku ci ngëmam gu dëgg kooku mu gëm kooku kon dégg nañu ci ba tey ni jigéen war naa am décision boppam ci ak gëm nga xam ne du sukkandiku ci jëkkër jum àndal jëkkër ja weddi du sukkandiku ci ay baay ak ndey te loolu alxuraan joxoon nañu ci misaal ci soxna sayidatu maryama ak asiya moom la alxuraan di junj ni daraba allahu masalan lilladina kafaru mraata nuuxin wa mraata luutin kaanataa taxta abdayni min ibadina salihayni fa xaanataahuma fa lam yuxniya anhuma min allahi shay'an wa qiila daxula naara maha daaxilin daal yàlla dina jox julli ji misaal ci soxna Noox ak soxna Luut ñu dañu nekkoon ci ron ñaari jaam yu baax waaye dañ leen a war war ga mooy ñàkk guñ ñàkk ànd ak ñoom ci pas-pas ba tax na ca waa sawar lañu bokk daane wa daraba allahu masalan lilladina amanu imraata firawna ñi nga xamante ne dañoo gëm ba tey yàlla dana leen jox exemple ci soxna Siraana ci ni maanaam ñële yéefar yi la jox exemple ci ni ak kéefar ak ak ngëm mën naa juddoo ci biiru kéefar lii mu jubloo woon julli di leen ak kéefar mën naa juddoo ci biiru ngëm moo tax man wa daba laa masalan lillazina amanu imra'ata firawna iz qaalat rabbi ibni li indaka baytan fi ljannati wa najjini min firaana wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin wa maryama ibnata imraan allati ahsanat farjaha فنفعنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين mu joxe ñaari misaal ci ni soxnas Firawna ngi nii doon ab siddiqatu kii doomi Imraan la te baayam ab yëfar la mu doon ab siddiqatu kon léegi loolu mooy li yàlla wax ne yuliju layla fi nahaari wa yuliju nahaara fi layli soxna si it foofu rek la jaar muy borom këram la àndal ci ak ngëm ñu dem Éthiopie mu soppi ko doon nasaan faatu fa moom mu dëggu ci ak ngamam ba yàlla terale ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam denc ko loolu rek ñu jubloo joxe misaal ci ni kon jigéen war boppam ci ak ngëm ba du xool du ca xool baay du ca xool borom kër bu ko yor dund ak ngëm mbirum yàlla la moo xam ne yàlla mooy seet ku ko neex mu tàbbal ko ci xolam gannaaw ba mu ca tàbbee yëpp nag sa décision bopp moo ko jàllale soxna Aïcha doomu Abu Bakar mooy ñetteelu soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom bi ko yonente bi denc mi ngi toll ci juróom-ñeenti at juróom-ñeenti at boobu yonente bi am na juróom fukki ak juróom wala jege na juróom fukki juróom mel na moom la yonente bi denc ci ab jànq mu mel ni gorom léegu yonente bi doxalee digganteem ak Abu Bakar du dara ak pay gum ko jubloo fay ci ànd gu rafet gi mu ànd ak moom ci fii ci dundub adduna ndax Abubakar mooy ki xaritoo woon ak yonante bi sallallahu alayhi wa jëkk nubuwa gi di ñëw ginnaaw bu nubuwa gi ñëwee dëggal gum ko dëggal ak set xam gum xam ni mosu koo xam ci ay caaxaan tax na lépp lu yonante bi sa wax ba am sax ñu ñu rëng-rëng ba caa am ñaatale Abubakar bu ñëwee dinaan waaye moo ko wax buñ ko ne waaw mu ne kon wax dëgg wax dëgg ba tax ñu di ko wooyee as siddiq siddiq nag martaba bu kawe la ndax alxuraan bi ne min annabi ulaika lisina anhama allahu alayhim min annabiina wa siddiqina la ci teg nga xam ne bi am bi aw jàllee siddiqoon yi ñoo ci topp te mooy ñi dëggal ñi leen dëggal wax dañu daal di bokk martaba soxna Aïcha nag gi nag ci ron yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni wasila la aw yoon la ngir man a tasaare sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci jigéen surtout li aju ci wàllu jigéen jigéen la ca mën a jaare ci buntam tasaaroo foofu rek la mën a jaare ndax ñenn ñi ay mag lañ woon ñaw gi ko yàlla defaloon moom soxna si ak yeewute gi ak mën ngeen mokkal xam-xam dafa mel ne xekk mu boobu képp jar na mu nekk ci ron yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngir mën a tasaare dina ci ba tax na yonente bi tàgg na ko ndax aw tagg féetewul kaw ni jël leen seen genn wàllu diine ci jigéen su xees yi xuzu chatra diinikum min hadihi al xumayra jël leen seen xaaju dini ci jigéen su xees yi magi saxaaba yi ñu ci bari ci magi saxaaba yi daanañ ñëw di laaj soxna Aïcha benn benn ci atte yi nga xam ne da leen te muy lu aju ci mbirum jigéen mu mel ni comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam denc gum denc soxna Aïcha mu toll ci juróom-ñeenti at mu toll ci juróom fukki at moom yonente bi sallam loolu am na ci jamono bii ñu toll nii nga xam ne ah, lenn bindkat yi tubaab yi dañ koy bind di ko lu sax di wax ne léegi maanaam gone eh, wërt sëy ak eh, mag mu toll noonu di wax ay ay wax muy ñenn ñi tudd ay mustasrixoon nga xam loolu di wax daal léegi eh, mag moom juróom di dem ci ab jànq noonu eh, loolu eh, du wér di ko dàq. waaye am na beneen mustasriq bu ñuy wax poddi boo xam ne moo leen tontu li mu leen mooy dafa wax ne Aïcha li muy doon doon gone. li muy doon doon gone amoon na ci ak ñaw ak yeewute ak kawe goo xam ne kawe woon na ci mboolem jigéen ñi mu nekk doon léegi ñu gisee ci ni ñun dañoo am ay sukkandikuwaay sukkandikuwaay yi mooy alquran ak sunna yonente bi lañu yàlla xooloo roy loonu ko léegi donte am na par benn benn bindkat yoo xam ne bu ñu bindee sax seen moroomam bindkat mu mel ni ñoom moo leen di tontu. ñun loolu suñu yoon nekk ci li ñuy xool mooy son xaay sa genn wàllug diine ci ci moom dañu ko war a jële te loolu dafa laaj kon mu doon gone ndax mag dafa am yeneen occupation yi nekk ci moom yoo xamante ne mën a mokkal mi moo bi dëgg du ko def loolu dafa mel ni dee fii ci biir yoonu murid yi ñu dund ñun doxin woowu rek la sëñ Abdou Lahad daan jël di ko doxee daanañ gis mu jël gone goo xam ne bu ko mayee ñëpp lañ naan ndax tuuti waaye gum tuuti waaye fekk ne am na sukkandikuwaay bu mu ko sukkandikoo ngir ginnaaw yonte sam moom lañ may ku toll ci juróom-ñeenti moo jaawul sax juróom benn at la am bañ koy may muy loo xam ni royukaay la ci ñun pour xam ne jigéen euh, waris na waris ko teel a bàyyi xel rëp ci ay mbiram teel ko maye ndax loolu lépp li wolof yi wax naan jigéen du të day raw léegi te jigéen li gën a waloore ci moom mooy mu nekk ci néegub sëy néegub sëy bu muy sëy nag léegi yow lañ yow lañ lay ca tànn loo yow mi koy maye yow mi way juram mooy na nga seet fa nga koy dugal na doon koo xam ni diineem doy na la ndax yonent bi sallallahu dafa daan wax ni jigéen dinañ ko takk ngir ñeenti mbir ngir ab taar wala askan moom bokk wala ngir alal am wala ngir diine jum am léegi nag mun la yow na nga ba jàppal borom diine léegi yow mii di xale bu jigéen bi it xoolal jëlal yëf yooyu ko booy may sa doom booy maye sa des na may nit soxna ngir ni tabax na kër gu rafet ak moo Modou la mi ngi dem Italie ak ñoom des na ko may ngir ni nangam waaye nag seetal ka ëpp diine ndax loolu moo ëpp mujj bul xool bi bul xool alal ji am bul xool dara xoolal diine boo xasee xool loolu nag ba joxe ko loolu moom bu amee juróom benn at sax baax loolu nag lañ soxla ndax ko jox moom moom ab yonent la nga xam ne jàngee ci moom ba mu a wax ni jël leen seen genn wàllu diine ci moom waaye yow mii mayewaati nag léegi xoolal ki ngay may bu la doyee ci ay jikko lu gën a ngi tuuti lu mu gën a war na ko jàngee ci jël googu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël soxna soosu mu toll juróom-benn at bi muy jaxasoo mu toll ci juróom-ñeenti at. te loolu sax xëy na am na ñuy historien yi bind di ko di ko di ko dalee ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne léegi loolu waxatul parce juróom juróom fukki at nangam ngay jël juróom am juróom-ñeenti at nangam waaye ba fi mu toll nii mu ngi am ci biir société yi yu yees jamono bi jamono bi ñu ba fi mu toll nii aada la ci. Eh, ci ci asien yi asi loolu ànd fa ba tey ba ko tuuti gisee mag ba fi mu toll ci penku Europe loolu mu ngi fa am loolu la ca Espagne ak Portugal boobu yàggutoo ba ci booru euh, Amérique ba tey am na fa yoo xam si sax ba fi loolu ànd ci ñoom kon loolu Eh, mbir la moom yonent bi dafa loon ab jàngalekat jàngale ko ñu war ko ci roy léegi fab xale mu jigéen teel koo joxe te kan koy joxe doon koo xam ne boo ko joxee bu mën caa jànge ay jikko yoo xam ne mën na koo génnee tasaare ko ci biir société bi muy dund moom moom moom jigéen ñi loolu lu am solo lu ma ci bàyyi xel te jëm koo jëm koo roy kon soxna Aysa moom mooy kii ci gënoon doon ko ne moom képp sax la jël ci ab jànq gannaawam la jël doomi Omar ibn Xattaab ñu Xafsa moom dafa dafa euh, amoon borom kër borom këram mi ngi faatu ci xarib Uhud gannaaw ba mu iddawoo ba idda ji jaax nag la ko Omar doon gaaral Aboubacar bëgg mu denc ko xaj na Aboubacar tontu ko mu gaaral ko Usmaan bëgg mu jël ko gannaaw bu doomu yonente bi jëm yoroon faatoo gannaaw bi mu ñëw ci yonente bi wax ko ni ko man kat sama doom ji diwa ko yoroon faatu ci xarab Uhud doon naa ci wax ak Abubakar doon naa ci wax ak Usmaan yonente bi ni ko Hafsa ku gën Usmaan dana ko denc Usmaan it dana ci ku gën Hafsa daal di koy ñaanal boppam moom yonente bi sallallahu alayhi daal koy denc daal di fab beneen doom bu jigéen bu ñuy wax Ummu Kalsum may ko Ousmane kon loolu mooy Hafsa ku gën Ousmane dana ko jël Ousmane it dana am ku ku gën ku kon loolu ba tey ñu xool rek gis ni mooy relation dëgëral relation bi dana am ci diggante Yonent bi ak saxaaba yi ko daan jàppale mu mel ni kon diine li ñuy wax politique politique dafa doon baat boo xam ne la muy tekki bu arab bu ne siyaasa siyaasa li muy tekki mooy doxin wu rafet boo mën a ànd ak nit bu ne ngay xool li la encadré qualité bi nga xam ni wóor na la ne fi nga taxaw mën na la fay wóotu jàllale mbooleem mission yi nga bëgg kooku bokkul ak ka nga xam ni mbooloo mee ko bàyyi ci yëf waaye bu ñëpp bàyyoon mu bàyyi loolu bokk na ci politique bu rafet ñooñu nga favoriser la jël gi am tamit jël doomi Abubakar jël doomi Omar ba noppi ginnaaw ba mu fi jógee ñu ñaar ñu ko wóotu goo xam ne dara wuute daan dox ku xam na ne bu fekkee ne léegi politique bu rafet am na loolu mooy politique bu rafet te mënta ñàkk lu mën a doon toll naa ni ñu demee ba ni politique mooy ay fan ak i tappale ak naa muy politique yi baat bi sax di ko wér ci ku mel ni yonent bi day mel ni takkalaat dara lay tekki waaye fekk ne politique ci ñun bu ñu andee baat bi li muy tekki ci arab muy siyaasa te xëy yéen bu rafet lay tekki doxin bu rafet te ànd ak nit ñi ci àndin wu rafet boo xam ne lépp ak dëgg leen kon doxin woowu mu dox ci relation boobu mu dox diggante mag euh, ñooñu ba tey ak njàng la war a doon ci kilifa gum mën a doon sa digganteeg si ndax loolu def mel ni da leen ko def fayee leen ko ci taxaw giñ taxaw ci diine ji ak ñor gum leen ñor ak dëggu guñ ci dëggu soxna si sa ca topp muy juróomeel bi di asayida ummu habiba ummu habiba ramla la tudd doomi abu sufyaan la yonente bi bi mu koy denc moom tam fekkoon na mu amoon borom kër ba ñàkk ko borom këram mi ngi bokkoon ci ñi gàddaayoon ba tey moom ummu habib moom moom tam dafa gàddaayoon ànd ak jëkkëram jooju ba mu demee Éthiopie la daloon kële moo ko dal dafa daal di nasaraanu moom itam bëggoon sax soxna si topp ko ci diine jooju waaye mu daal di muñ jàpp ci diine islam jooju ba jëkkëram jooju moom ci euh, diine islam jooju ci la faatu bi yonent bi xamee loolu yi nag la yabal ndaw ca Najaasi yi ni ko mu labatal ko ko Najaasi yu ñaanal ko yonent bi ko ko loolu ku ne dana ci xamee ni denc googu yonent bi sallallahu alayhi wasallam denc ko ko ku ne dana ci xamee ni euh, ngëmam gu dëggu mu bëgg ko koo bëgg lam ñàkk mu fayee ko lu ko lu ko lu ko ko fàttaloo moo waral denc gi waaye ku ne xam ne ni loolu du dencu bànneex du denc gii di dox diggante nit ak ku ne xam ne ko ñaareel ba it abu ko jur ci ñi gënoon noonu yonente ba tey doomam ju gu dëggoo noonu gu tol noonu borom këram nasraan bëgg mu topp ko ca mu gàntal bi fay fay gum fay si ci takk ko ñaareel ba it denc gi mu ko denc dana woyefal noonu gi doxoon digganteem ak Abu Sufyaan ba tey loolu bokk na ci politique bi rafet comme noonu rek dañ ciy jaar jaar yu gaaw xëy na bu beneen ne sax du ñàkk ñu bu leen doon tukkati kenn par kenn ku ci ne danañ ci mën a waxtaan indi ay ay kéem indi ay ngëneelam waaye loolu lépp nag ay jamono yu ndax jamono ji moo yaatuwul yaatuwul dem noonu waaye dañ leen di indi indi dégg mi ci am soxna ummu salama moo ci topp hind doomu abi umayya la kooku ci ñi gënoon a ak ngëm ci la bokk ci ëpp ñi ëppoon ak ngëm ëpp ci jigéen ñi ci la bokk moo itam dafa gàddaay na ànd ak borom këram dem Éthiopie ngir rawale ji diine ci lori Xuraysh ci njëkk a gëm la bokk gannaaw bi it mu gàddaay ñëw Madina borom këram nag mi ngi faatoo woon ci xare bu Uhud moom itam yonent bi labat ko ngir denc ko yonent bi labate dane ko moom soxna moom mun yonent bi mag laa tey boroomu njaboot laa tey damaa fiir ñett yëpp daje na ci man bi ko bu dee mag la mag bu dee njaboot gi moom yàllaa ko bu dee firaange gi dinaa ñaan yàlla mu dindi ko ci denc ko yonent bi moom soxna Umu Salama moom mun yonent bi man de mag laa tey boroomu njaboot laa tey damaa fiir ñett yëpp daje na ci man yonent bi ne ko bu dee mag gi maa la mag bu dee njaboot gi moom yàllaa ko warlu bu dee firaange gi dinaa ñaan yàlla mu dindi ko ci kon kooku moom itam euh, buñ tax yonent bi sallallahu muy seenu ngëm seen daan xool di leen terale loolu yi mu leen daf ko denc ngir aada yu yu amoon mu jubloo yàq aada yooyu pour taxawal diine ndax Zeynabu ab Quraysh ya la maanaam ci waa Quraysh la bokk borom askan wu kawe la doomu bàjjanu yonente bi la Umayma bintu Abdul Mutalib moo ko jur kon doomu bàjjanam la Zeynabu Zeyd ibnu Xaarisa moo ko yoroon Zeyd ibnu Xaarisa ku ne na histoire ni Euh, dañ koo jàppoon jaam biñ ko jàppee nit ka ko jënd bi mu ñëwee Xadija la ko joxoon kado may ko Xadija moom moo ko mayoon yonent bi sans bi mu ko mayee yonent bi mu nekk as ngóoram di ko liggéeyal ab diir ay waajuram dégg ñu ni seen doom dañ jàppoon ci xare sàngam kat dégg nañ ñu ni ma nga màkk baayam ak baay baayam bu ndaw war seeni gëléem ñëw ci yonent bi bi ñëwee màkka bu ñu ko waxee yonent bi dañ koy dégg suñu doom moom lañ ñëwoon ngir jot si ko yonent bi ni leen danaa mu leen tànnee ma boole lee nag moom ngeen dem ci lutul ak jot bu ma ngeen bàyyi ko fi mu dégg lool daan ko lool gi xewul ndax jàpp nañ ni mukk du ci eh, ay ay wajur ñu mu ñëw yonent bi ni xam nga ñi mu ne waa xam naa leen ci sama bàyyi sama diw la mu ne di la jël ma bëgg nag benn nga tànn leen mbaa ma tànn mbaa nga tànn ma boo leen tànnee da nga dem ci ludul ak pay ak jotu su fekkee mën nga tànn ñu bàyyi la waxante ñu kooku ni ko li ma xam ci yow ci jikko yu rafet du ma tànn kenn ci sa kaw waaye jur ni ko yow moos yow ak njaam moo la gën a ni sa yooyu bëgg laa yóbbu waaye fekk ne booba nubu woo gi sax ak seegut waaye jikko ji rafet ji mu xam ci yonte sansan moo tax mu gënal ko ay yooyu loolu ma wax yonte bi jàpp ci loxoom ñëw ba ci kaaba bi ba waa Quraysh yépp teew mun leen maa ngi di seereloo ne Zayd nii sama doom bés ni ki tey dana ma doon ma di ko doon daal koy boole ci biir njabootam te booba loolu daganoon adopté nit ñi mu bokk ci sa njaboot ba booba dañ ko daan wooyee Zayd ibnu Muhammad dañ ko daan wooyee noonu lañ koy wooyee ba aaday doomoo nit bi yàlla bëggee mu jeex léegi Zeynabu bintu Jahsh si ñi nga xam ni dañ ko mayoon Zayd mu fase ko ndax may gi bim ko ko bim ko koy may Zeynabu dafa gàntal ndax day jàpp ni comme ci waa Quraysh la bokk bokk ci ñi gën a tedd ci jigéen ñi di sëykub jaam daan loolu ak manqué ci lay doon ci moom waaye fekk ni yàlla it muy digle dafa jubloo nattu Zeynab ba xam fu ak ngëmam toll ndax dina ji dafa ñëw ngir dindi ay xeebante ci askan ak yooyu yëpp dina dafa ñëw pour dindi ko kon danañ la nattu ba xam ndax li nga woote wér na wala ci loolu la yonente bi ba yonente bi gaarale Zeynab ni ko dama maanaam dama laa bëgg a may sama doom yi ñuy wax Zeyd Zeynab lànk ni ko xel xalaatu daa di jomb lool ngeen ni fi mu bokk daal léegi ëppante naag muy sëyeeku jàmm bi loolu amee ci la aaya alquran wàcc ni wa maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amri wa man yaasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina yàlla wàcce ay alxuraan ni yellu ci benn jullit bu góor mbaa jullit bu jigéen bu yàlla attee akub yonentam ñuy tànnati seen tànnu bopp seen mbir waratuñ caa moom dara ginnaaw bu attub yàlla ñëwee ak yonentam daal di nag comme yàlla akub yonentam nag réer na réer bu réere loolu moo waral Zeyd ibn Xaaris waaye may gépp nag teewut lu nekk ci ab xol nii dafa neexut a faxas donte ak ngëmam joone ko ci mu nangu bañ a gàntal wax yàlla waaye teewut la ne ci biir moom caaxaan daf ko dindiwut léegi relation yi seen diggante neexut ndax buy wax moom wax tàng lay wax ak di ko di ko di ko di ko ayibal di ko ayibal ci aw askan naa ko doon dara nangam nangam ba Zeyd mënatu ko dékku mu fase ko mu mu waxtaan yonent bi ba wax dëgg mënatuma ànd ak moom léegi la mooy fase ni mu ko fasee nag yàlla digal yonent bi mu war a denc Zeynab moom ngir yàq biddaa boobu ñu fi amoon muy biddaa doomoo nit def ko sa doom ba tax doo sañ a denc soxnaam biddaa boobu la yàlla jubloo yàq moo tax mu digal yonent bi mu denc Zeynab ginnaaw bu ko Zayd ibn Haaris te bàyyi Zayd ibn Muhammad dañ ko daan wax jamono boobu même yonente bi sax bi ko yàlla digalee loolu am na ci problème parce que ci nit ñi rek xalaat na ni naafeq yi loolu lañ ko wax bu ko defee yàlla digal na ko mu denc ko waaye tool fi réer mën na ci juddoo ndax danañ ko danañ yàq ab daram ci ni Muhammad denc na doon eh, soxna si doom loolu moo waral aaya alxuraan bi wàcc na ni koy yedd yonente bi ni ko wa taxsha naasa wallahu ahaqu an taxsha da ngay ragal ni ñu waaye yàlla gën a yee ci nga ragal daal ni falamaa qadaa zaydun minhaa wataran زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا aaya boobu kon li ko sabab mooy gina bu ko yàlla jox ndigalul denc soxna si xalaat bi mu ci am ci li nit ñi dal ci kaw moo moo raaya bi wàcc yonent bi xamoon na Zeynab doomu bàjjanam la te Zeynabu yonent bee ko gën ay bëtam ni ko wolof yi waxe bu ko bëggoon a denc ngir ak cofeel mbaa bànneex bu yàgg la ko doon def ba mu doonee kon lii ku xool da nga gis xikma bi tax mu denc ko moom itam nga xam ni du problème mu cofee lii nga xamante ne mooy am ci diggante nit ak lu ci nekk xikma waaw muy aada yi aada yi doomu euh, doomu aada taabal dal la yent bi jublu la yàlla jublu yàq foofu moo tax mu digal ko euh, mu denc ko foofee la ginnaaw bi nag la aaya alxuraan wàcc wane ni léegi euh, fad'uuhum li aabaa'ihim huwa aqsatu inda allah fa in lam ta'lamu aabaa'ahum fa ixwaanukum fi ddin wa amwaalikum booba lañ bàyyee wax Zayd ibn Muhammad di wax Zayd ibn Haris li ngeen xam ne kon seen surga la ñuy nekk ak yéen waaye bu leen leen wérati ci kenn ka ca mooy Juwayriya bintul Haris ibnu Abi Dirar kooku mooy juróom-ñetteel moom itam mu mel ni bi ko yonente bi denc jubloo naam mu xoli ay mbokkam ci islam rek moo tax mu denc ko ak liberté gi ñu ñàkkoon mu jox leen ko ndax juwayriya ci benn mustalak la bokk euh, yahudi yi ñu daan wax benn mustalak ñoom waxoon nañ seen histoire ci ginnaaw dañoo dajale woon bëgg xe bëgg xeex si yonente bi sama seen kilifa nga ñuy wax alxaaris ibnu a diraar moo ko jiite bi yonente bi déggee gëstu ba xam ne ñi ngay waaj ñu bëgg ñu xeex ak moom mu jëkkante ak ñoom jëkk leen dal ci seen kaw ba mu dalee ci seen kaw leen jàpp ñenn ñi ñenn ñi ñu rey leen ñu suñ jàppe jàpp na ci lu bari ci ay góor ak i jigéen ak i xale jëlee fa alal ci bare bari du jigéen ñi ñu jàppoon nag Juwayriya mu doon kilifa euh, Bani Mustaraq bu Juwayriya doom la ñu jàppale ko ci bi ñu ko jàppalee bay séddale mu tàbbi ci cërub kenn ci jullit mu mu jotu mu bëgg jotoo kooku ne ko léegi naa la jox nangam te gore bi kooku d'accord rek moom ci loolu mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah man maay Juwayriya bintul Xaaris ibnu Abi Dirar sayyidu xawmihi ni ko li ma dal ci balaa ëmp la mu yàlla natt na ma ba ma dugg ci ak njaam léegi nag damaa dugg ci cërub Saabit ibnu Qays moo ma moo damaa jotoo ak moom nag ma bëgg nga dimbale ma ci jotoo gi may jotoo ak moom foofu xikma bi yonent bi feeñ na fi ci bañul mustalax ndax comme ay dëkk ndoole jógoon nañ ngir xeex ak moom mu daj seen kaw ba gañe leen ba jàpp leen ay jaam waaye feeñal na fi ndax dañoo bokk ci arab yi gënoon tedd ay askan ñoom bañul mustalax boobu xam nga ngeen jàpp seen i góor ñëpp ak seeni jigéen mbooloo mu toll nga jàpp leen. def leen ay jaam dana doon lu diis ci bakkan yi surtout bakkan yi xam ne ay bañkat lañ te loolu mën naa indi problème socialiste lu garaaw lay doon ci biir société bi ñu dar bu doon ab yëg-yëg bi ñu yëg ñu moo xam ne loolu mën na ko indi foofu la xekk mu yonent bi fay ci ni ci doxe parce que ni mu ci doxe mooy dafa wax juway ree ni ko ndax bëggoo lu gën loolu lu gën ma dina dimbale ngay dem di mun ko loolu doon yow yonent yàlla bi mun ko mën naa laa fayal sa bor te denc la lu ko ak loolu xew la daal daal ñu ko loolu kay d'accord naa ci baax a baax bu yonent bi fayee fa bu ñu ko fayalee bor bi daal di koy denc ba xibaar bi xibaar bi tasaaroo ci biir jullit yi ñu ne yonent bi denc na Juwayriya bintul Haaris jullit yi seen xel moo leen jox ni goroy yonent bi du ñu def ay jàmm kenn ku ne daal di libéré ñu ngi ci amoon nga xam ne kon xikma la doxee foofu moom yonent bi sax nekkul sax di woote di leen wax benn baat waaye nag ginnaaw denc na Juwayriya rek. ñu ni ñii kat goree yonente bi te goree yonente bi duñ leen jaamu ba booloo lañ ci daal di goreel ñun ñëpp lañ leen di goreel daal moo tax wax ni musuma gis jigéen ji ëpp barke jigéen ji muy juway bi ndax bi ko yonente bi dencee bi tax na ñu goreel ci mboo mboo mbooloom ba ñu mustalax ñu yor ñëpp lañ leen goreel ci sababu dencee mu ne mu jigéen ñi ko ëpp barke ji waa këram daal musuma ko gis loolu loolu soxna Aïcha seeral juwayriya moom juróom-ñeenteel mooy Safiya bintu Hayy ibnu Axtab ba moom itam baayam moo doon kilifa ak Bani Nadir ci Bani Israil la bokkoon dañoo rey jëkkëram ci xaret Xaybar dañ ko reyee yonte bi woo ko moom Safiya moom bi mu ko andi ko nag ci moom du ma la ci forcé waaye nag bu fekkee ne tànn nga yàllaa ko yonentam ma ma féetale la sama bopp mu ne ko tànn naa yàlla akub yonentam bi mu waxee loolu yonent bi daal di koy goreel daal di koy denc ba tey loolu euh, teraanga ju ko yàlla teral la moom bi jubloo teral la ci denc bi mu ko denc ngir ngëmam kooku ka ci topp mooy ay sayida Maymuna bintul Xaaris alxilaliya moom mooy ki yonent bi mu ko denc léegi yonent bi ginnaaw fukk ñooñu juróom Xadija dafa faatu juróom-ñeent la fi bàyyi euh, xaj na fukk ak la laa wax jënd bi xaj na dama cee boole Maariyatul Xibtiya Maariya moom euh, ab jabeer la bu mu yont boobu yonte sama euh, wax Ibrahim Ibrahim moom dafa teel ci ak ngoonam la faatu. amoon na benn jabar bu ñuy wax Rayhaana bint Zayd ak Xurafa yooyu ci benn Xurafa sa la bokk moom tam ñooñu ci la ñu doomam yëpp Xadija moo leen jur ba mu des Ibrahim doom yi mooy xaasim ak tayib ak tahir yaakaar naa loolu lañ ne tayib moom moom la ñu wooye euh, moo tuddoon na abdullahi ñu di ko wooye tayib ñett ñu góor ñooñu la ak ibrahima ñeenteel la léegi zeynabu ak ruqaya ak umu kalsum ñooy jigéen ñun ñëpp nag bu dee góor ñi moom dañ faatu jigéen ñëpp euh, dem ba màgg ba dencees kon loolu ab dërs la ci soxnay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye rek ñu jublu cee jànge rek ni eh, cër bu góor am ci diine ji jigéen am na ko ci ndax indi naa léegi ñaari siddiqatu muy Asiya ak eh, sayidatu Mariama te siddiqa it wax naa ni bu martaba nubuwa jàllee moo ci topp ndax yàlla nee na ulaayka lazina an'ama allahu alayhim mina nabiyyiina wa siddiqiina kon jigéen cër bi yonent bu jàllee yonent mooy li gën a kawe bu jàllee rek cër ba ci sisaat jigéen mën na ko doon comme ni ko góor maa doon ni Aboubacar doon siddiq noonu la Mariama doon siddiqa léegi mu doon loolu dañ cee jubloo xam ne rek ni cër bu bu am ci diin jigéen mën na ko ca am nga xam ne ñu dund ci jamono léegi bii mooy cër bu am ci wàllu adduna gis nañ am ko bu fekkee adduna bi am na fi ay buur yu jigéen muy buuru Angleterre am na fi ay président yu jigéen am na ay premier ministre yu góor am yu jigéen nga xam ni cër bu ñu fi gis ci jamono léegi jii góor am ko rek gis na jigéen am ko kon léegi loolu war naa mën a pousse jigéen ci mu góor-góor ni ci côté yëpp te nii ma tuddee soxna Yonent bi sansom wax ni war nañoo mën a doon ay royteef ci jigéen ba jigéen xam ne li nga war na ko mën a doon am nañu ko dund am nañ ko dund am na ku ñuy wax euh, Rabia al Adawiya ku yéemu la woon ci wàllu tasawuf daanaka ñaari at la soobu àgg ak gu wóor bu fële ni dafay ko di ko siyaare si léegi ci saxaaba yi it am na ci jigéen ñoom xaj na lépp lu mën a leer ci jataay bi waaye am na ci ñu xamante ne ay misaal yu yéeme lañ ndax am na ci jan jigéen joo xam ni doomam dafa wéradi bi mu ba noppalu ci ay loxom borom këram gennoon bu borom kër bi ñëwee mu andil ko reer mu reer mu daal di dem waaj na mu daan waaje ba jekk ñëw jege borom këram ba mu jaxasoo ak moom gannaaw bi mu xam mu ni ko mu xamal ko ni ko xale bi kat daa noppalu mu ko eh mënu ma ko woon wax mu ko dama doon bañ ngay am benn jafe-jafe mbaa nga waroon a reer te réew mbaa nga waroon a def dara dem léegi ba mu xëyee wax ko yonent bi nettalee ko noonu yonte bi ni leen baarakallahu fii laylatikuma yàlla na leen yàlla barkeelal seen guddi ba ginnaaw bi lañ ca ay doom juddoo yoo xam ne ñëpp ay borom barke loolu am nañ ci ay tegtal yoo xamante ni ñu mel noonu la ñu doon ci saxaaba yi ay melo melo yu demee noonu kon loolu ñu déggee ci rek euh, taxawaay bi jigéen war taxaw ci wàll yëpp bu dee ci seere yi nga xam ne nag ñi bokkul ci diine ji dañ koo seereel yonente bi sallallahu alayhi ci andi benn seere bu benn philosophe bi ñu wax Waldemarant seere kooku dafa xam ne buñ xool bu fekkee ne réewub nit ki daal bu fekkee réewub nit ki ñu ngi koy xool ci jeexit jum jeexital ci adduna bi Mohamed kooku gën a rëy ci niti niti histoire musaam ndax mustawa bi nga xam ne maanaam niveau bi nga xamante ne ci la arab yi ci ak arrière ak fi mu leen puus yóbbu muy ci wàllu ruux wàllu ak nite fa mu leen ci yóbbu wax na ne buñ doon dox junni at maanaam mu ngeen dox danañ ko dox dox junni at mu yóbbu ci diir ñaar fukki at ak ñett mu ne bu fekkee ne dañuy xool nit ki rëy gum rëy jeexit jum def ci adduna bi rek kon yonent bi kenn féetewu kaw ci wàllu kawe am na la mu wax Lamartine benn adib la adib bu dëkk France France la Lamartine wax na ni bu fekkee ni xëdëf bu rëy ak simple yoon wi nga jaar pour am ko ak résultat yu rëy ak résultat yu mag bu fekkee loolu mooy ñetti xiyaas yi ñuy xiyaase pour xool matug nit daal kon Muhammad kenn du ko mën a comparé kenn ci kaw suuf ndax xëdëf bi rëy na yoon wi mu jaar pour taxawal ko simple na te résultat yu rëy mu ne bu fekkee ñetti yooyu mooy yi ñuy jaar pour xoolee ci nitu nit rek kon ku gën a rëy Muhammad damay wax ni amul ci kaw suuf daal ndax ñu ñu fi gisoon ñu gën a ci ci ñu fi jaar ci biir histoire yi mooy ñoo xam ni dañoo ay gànnaay xeex ba luwaay fekkoon ñu changé ko bu ñu ko changé taxawal fi lu mel ni as ngóor ngóor soosu mën naa am ba lañ fay jóge ñoom ci seen jëm bopp ngóor ga tasaaroowaat yonente bi lañ gis mu ñëw soppi ay nit ay ay millions nit yu bokkul ci kaw suuf bokkuñu aw xeet bokkuñu làkk wu ñuy làkk bokkuñu ay bokkuñu woon ay yëg-yëg mu soppi ñëpp takk leen ci genn boobu ñu jaar ci wenn yoon mu teg ko ci kaw benn téere boo xam ne téere boobu araf wu ci la wala moo ko ci la mu wax ni fii jaamu xiram toll woon ci xelu xooli arab yi mu di ak ni mu ko dindee ci seen xol ba mu set di philosophe di muhaabir bi di ab yonent di musharria di ki nga xam ne bu xeex jotee mooy suñu mu ko jiitu di génne xalaat yi maanaam mu ni buñ xoolee ci xiyaasukaay yi ñu xiyaas yëpp daal yi ñuy xiyaasee nit ku réy képp daal Muhammad kenn du mën a indi ko koy comparé ci kaw suuf loolu ab yéefar bi ñuy wax Lamartin moo ko seere ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon loolu mooy li ñu doon ñambaas ci mujjug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir àggale ko histoire bi la des nag xam naa comme xilaafa gi ak euh, benn benn saaba yi la xam na juróom benn fukki saxaaba yu ñu cuqet wax seeni jikko euh, te kenn ku ci ne dafay représenté junni nit ak euh, nangami junni nit yi nga xamante ne ñoo toppoon yonente bi sallallahu alayhi wa loolu lépp sax kenn du ko mën a nekk waaye danañ ci am ñu cuqati ñoo xamante ni lañ cey jublu lépp rek mooy am njàngale ndax adduna histoire histoire euh, dafa doon loo xam ni dafa mënta ñàkk ci dundu doomu aadama bi ndax alxuraan sax daf ñoo junj ni nu daf ñoo digal ni nu na ngeen di dox ci kaw suuf di xool bu jóg ñu jaaroon barab sangam fañ mu jël fa siiroo fil ardi fanzuru li mu tekk mooy del dox ci kaw suuf di xool yoon sangam wii ka ci jaaroon jàll boo ci jaaree da nga jàll yoon sàngam wii ñi ci jaaroon dañoo kalawu ci diggante boo ci jaaree da nga kon histoire dañ koy jàng ngir loolu ak boo demee ak sax ngay dox nag saa boo demee ba gàgg gestu sa ginnaaw xool mën a gàgganti ko ci la nga weesoon ci ginnaaw euh, bu dee nag jëm yonent bi soon ak saxaaba yi mu àndaloon nga xam ne boo leen yar ñu doxe ko ñooñu moom jullit bu ne jamono bu ne rek dafa war a teewal dafa da leen a war a teewal ci kanamam ngir mu doon waxuma la sax mu doon am jàng waaye daf ko war di dund leen war a indi ci kanam di ko dund loolu mooy waral mooy tax lii ab jullit bëgg a taxawal mu mën ko taxawal ak jamono ju mën a doon ndax bu ñu xoolee ci jamono biñ toll jullit yi mat milliard bu tegal léegi yéefar yi la ca des lépp lu door doon ay nit ñi jaxasoo ñu bokk ñu ay jàmmkat xel lañ ñii gëmuñ ñii gëm nañ diine chrétien ñii gëm diine yahood te teewut nos bi nekkul ci loxo jullit yi jamono bu ne rek ñun dañuy nose dañuy puus dañuy jàllale dañuy wan fi ñu war a jaar loolu war nañoo xoolaat suñu bopp dañuy xoolaat suñu bopp mooy dafa mel ni organisé wu gi saxaaba yi defoon ak takkutoo gañ defoon ak ni ñu ak ni daan xoolee alxuraan benn point bu mu wax bu ne ñu jëm ko dund mu doon jëf yu ñuy jëf loola moo nu manqué te jamono bu ne war nañuy xool nu ñu ko mottalee suñu jën bopp naka noonu sëriñ bi bu mu ñëwee muy sëriñ Tuubaa mi ñu ànd bu mu ñëwee jëmmi loola da andiwaat moo tax ñu li mu leen daan wax mooy def leen saxaaba yonente bi yuy seeni baay lu ngeen daj rek dajal nañu ko ëpp te muñoon nañ ko ba taxaw li ñu taxaw danañ dégg ci aaya bi nga xam ne dafa wax soxna yonente bi sallallahu alayhi ndax yonente bi ay soxnaam dëgg la lu si naqar naqar yooyu ci lañ daan dund ànd ko moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye bis nag xalaat nañ ci seen bopp ni léegi ñun daal nekk bi nekk yonente bi ba noppi te daanaka koddaay lu baax ak bu baax amuñ ci dara loolu war nañ ko diggante ba ñëwee jàmbat ko yonente fayee mooy dina gàddaay lu mat daanaka lu jege ñaari weer ba aaya alxaan wàcc bi ay alxuraan wàccee li yonente bi waxal sa waa kër ñi ni bo bu fekkee ne da bëgg àdduna képp da ngeen bëgg dund bu àdduna kullu aswaajika in kuntunna turidna alxayaata dunya wa zinataha fa taalayna umatti'kunna wa usaffihkunna ak taaru bu àdduna képp ngeen bëgg ñoo leen ma fasitan bàyyi leen ngeen jóg dam wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daaral axirata fa inna allaha a'adda lil muhsinaati minkunna ajran aziima bu fekkee ne yàlla ak yonenteem ak bis ak ëllëg bëgg na yàlla xaroon na leen fa lu réer réer aaya ba bu mu wàccee yant bi leen woo kenn par kenn xaalis la jëkka woo ni ko maa ngi leen di wax loo xam ne bëgguma nga nga gaawtoo ci dañ ciy tayal waxtaan ceeg sa xel dem ci suñu waajur ñu waxtaan lii wax mun ko xanaa lii laay mun ko lii laay waxtaanee sama ñaari waajur man nga xamoon yàlla ak yonent bi lay tànn ak ah, lisbit mu woo keneen wax ko kooko tontu la xaalis tontoon noonu la leen kenn kenn bañ jaax ñoom ñëpp léegi kon ñu dégg ci ni kon yoonu lu neex ñi loo xamante ne léegi day mel ni ak lem booy wan mbaa muy doon doon tàntal déedéet lu naqari kat la war a doon wax nañ ni ñu ngi nett la ni sëñ laat waxoon na ko waa këram ni leen dépense bi ngeen di wax de na ngeen xam ni yëfalu ma damay dundal doomi sa waa kër Sëñ Tuubaa yëpp ci loolu la ñuy dund mooy ni dañuy dundal waaye yëfaluñ que adduna taxu leen a jóg yonente bi mu taxawalan li mu taxawal ku xamoon ni mu sampale woon ci ab dund nga xam liñ ko an labal ay ndar lay doon yuñ jaxase yuñ fab ay xajali tàngal ma dugal ko ci biir mu doon payaas bu woyof nii benn bés soxna si lem na mbaaj mi ñaari yoon ngeen ne daal lii lii lii dafa xaw a wow ba ëpp waaye yonent bi ñëwee dañ nañ ko delloo na melam ñoom ñu ngi dëkkoon ci néegi ban tabaxi ban lañ tabaxaloon léegi rajo ya nga xamante ne moo daan ëpp néeg yi ay der dari dari gilam si daan doon maanaam dund bu simple boobu lañ daan doon moom soxna Aysa wax na ni eh, waa kër yonent bi mosuñu regg lu mat ñetti ñaari fan ñu ñu regg ko ci mburu muñ defare belle nee na Moussa moom bu nañ ci dund taxasuf ci lañ daan dund léegi nag jullit bu nekk war a dellu si loolu xam ko xam ne war a métti war a neex boo di fanaane julli di noot ci fanaane julli di yendoo woor lépp ni na ne suñu mag bi ci ak mujjam am na benn murid boo xam ne daan defal junjaar di ko ko andil li ñu ko andee ñaari fan ñetteelu fan ba ñu ko andee sëñ bi ne ko delloo ngir damay bañ sama bakkan laay bañ mu tàmm ko te adduna daa wóor muy te boobaa muy wax loolu léegi bu bëggoon ay bëri koy bëri koy junjaat dana ko mën a am waaye jamono bu ne ba ci ak bu jëm mi ngi bàyyi xel yu war a jig adduna ba tax na du ko du ko nax mu ko ci adduna loolu bu bëgg a dellu ci ak njëriñ wala murit bu bëgg a dellu cosaan la nga xamante ne moom la fi Sëñ Tuubaa indi woon fokk muy bàyyi xel yooyu di ko xam di ci jéem kem kàttanam kon léegi loolu euh, ak taxawukaay la euh, ñu taxaw foofu ba beneen yeneen gëstu yuñ ci gëstu ci wàllug euh, saxaaba yi ak euh, déggin yi nga xamante ni maanaam Serigne Touba dégg na ko yàlla def ba mel ni ku ko daan dund lépp bu soobee yàlla dinañ ci def ay waxtaan di nuyu bokk yëpp nañ leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla mu defal ñu ak dégg ak topp ak jëriñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.